nasru muminin bi xettali jullit yi ci mbooleem seeni jafe-jafe nasru muminin garab ak gàncax andi leen xéewal gu rëy muy ay xeetu jaaro yu doy waar lool te li ci gën a yéeme mooy ku nekk da ngay xoll sa tabian ba xam sa nature lan la ñu door laa jox nag jaaro bi dëppoo ak yow maanaam jaaro bi dëppoo ak sa tabian te day ànd ak cuuraayam ak parfum am gaaw lool efficace lool te mboolem ñi utiliser jaaro yi nee nañu da ngay takk rek tàmbale gis résultat te njëriñ li mooy daf lay may wërsëg ubbeeku bayre ak kaaraange gu mat sëkk ngir am ci jaaro yi lu jiitu dangay xam sa tabian maanaam sa nature lan la ba pare ñu door laa jox jaaro bi dëppoo ak yow Nasrul Muminin garab ak gàncax di yëgal mbooleem ay clientam ñi nga xam ne dañoo bëgg xam seen tabian maanaam seen nature seen couleur seen bis ak li gën ci ñoom daw leen gaaw woote ci numéro téléphone bi 445 04 79 ñu xoolal la say mbir ba noppi jox la jaaro bi gën ci yow Nasru Mominin garab ak gàncax di leen jox ay produits yu baax 100% naturel ci wàllu néew kàttan ak ñu tuuti bëgg am yaram ak ñi am yaram bëgg a wàññeeku Nasru Mominin garab ak gàncax mooy xettali jullit yi di saafara seen jàngoro. salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ma leen nuyoo maa ngi leen di siyaar bu baax. di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen sant bu baax ndax gis nañ taxawaay bu rafet bi ngeen am ci seen biir di suñ production di leen wéy di wax ngeen di sem vidéo bi di leen ko aimé bu baax a baax ndax bokk na ci li koy may doole YouTube ngeen di wéyal di abonné ak di ko partagé tey nag dañ leen di indil histoire bu metti te daw yaram loolu sax xam naa ne ñi seen xol yi oyof dinañ leen jéggalu bu baax a baax ndax du ñàkk am ñu ci tuur xewal mais ñi leen di ñaan ngeen dëgëral seen bopp saa soo leen koy seetaan. série bi nag ñoo ngi ko tuddee jaar-jaaru àdduna bëri ay jàngat loolu ci ñi nekk ci buntu àdduna waaye mag ñi nga xamante ne dañoo yor kër man cee jànge lu bari xale yi tollu ci seen buntu àdduna tamit man cee jàng lu bari muy góor muy jigéen ba tax na dañ leen di ñaan ngeen partagé ko bu boobaa amaana. dina leen jàngal bañ mën a xam fi ñuy teg seen tànk ci àdduna te xam ne lépp lu ñuy dund lu metti ci àdduna bis day ñëw insha allahu rabbi yàlla mën na cee def sutura ndax yàlla saa su la njëkkee teg lu naqari xamal ne soo guddee fan mujj ga bànneex lay doon waaye saa soo njëkkee ci bànneex seytaane mën na la këf ba sa mujj mën na ñaaw ba tax na daal am naa yéene yi ñu bari jàngee ci ndax istuwaar bi man mii di ko def ak yéen wax dëgg yàlla jàngal na ma lu bari ci àdduna mu nekk histoire bu am nag nekk istuwaar vraie bu xewoon ci benn famille. pour ñu bañ a guddal ak waxtaan bi di yàgg dañuy ànd ak yéen ñu topp suñ production ñu dugg ci biir istuwaar bi ànd ko ak yéen jërë ngeen jëf ci taxawaay bi. kii nag mu ngi tudd Mor ndeysaan Mor nekk xale bu yaru bu baax loolu waaye ak dundam metti loolu metti gi foo ko takk weesu na ko ak jaar-jaaram ci àdduna daal metti na lool tàmbalee ko ci ay famem ndax famem kenn gënu leen a sonn Mor mii sax daanaka ay famem muy yaayam ak baayam ñoo ko gën a metti la ak dund xam ne moom dund gi muy dund ak ndona la maanaam lu mu dond la lu mu ñëw juddu fekk ko fi mu wéy di dund ci dund googu moo pour ngeen xam dëgg-dëggi lu ko sol ak jom ba mu yëram baayam ak fu mu toll di jooy ngir bëgg a tekki moor jamono yi muy am fukki at ak juróom dafa toogoon ak baayam di waxtaan donte da ko rus waaye bis boobu dafa takk fitam daal di ko koy laaj ne ko bàyyi lan moo tax ma gis famille bi nga bokk am xaalis loolu ñii di tukki ñenn ñi nekk ay commerçant yu mag ci marché bi man daal dama gis ne ñi la wër ñépp ay borom alal lañ ku nekk yaa ngi yor sa kër correctement te dégg naa sa papa di sama maam ku amoon alal la te alal ju bari la fi bàyyi daane ko bàyyi ana moo waral kon ñun ñuy dund situation yu metti yi noonu baay ji daal di sëgg ndeysaan baay ji moo ngi tuddoon Góora Njaay Góora Njaay noonu la sëggee jooy ba sërxët moom Góora Njaay daal di siggi ne ko doom nag xam naa ne màgg nga ndax boo demee bay xalaat yu mel nii am nga cofeel ak yéene waaye am na lu la ump loolu te réer sa bopp bi duma la ko nëbb nag mu lay def pression ndax bëgg naa nga nekk ci jàmm ak salaam ba mën a dund ba lépp lu ma yàlla waroon a jox te mu xañ ma ko ñu jox la ko ndax xam naa ne suñ ko tegee sa loxo diñ ci dimbali sa ay waajur ndax gis naa yërmande gu rëy gi nga am ci ñun noonu Gora Ndiaye commencé di nettali moor li tax moom mu torox te amul xaalis ndeysaan Gora Ndiaye daan ne moor man sama baay di sa maam ku amoon alal la ñépp xamoon nañ ko daanaka sax mën naa ne quartier bii ñu nekk moo ci ëppoon alal xeex bu bari ak i noon bokkul ne ci li ma suufeel nekkul ne sa baay dafa liggéeyul nekkul ne tamit bi nit ñi liggéey damaa toogoon di seetaan daal di koy waatal ne ko billaahi maa ngi loon liggéey di leen préparer ngir bëgg lu ma leen dundalee ak boo leen ñëwee doo leen sonn waaye lii la yàlla dogal ne ko sama baay laataa muy faatu laa commencé di am ay problème yu rëy ci sama kër daal ne ko moor man sama yaay fekkante wu moom dara ci àdduna ndax bis ba may juddu ginnaaw ba mu ma wisinee ba pare la sama yaay daal di génn àdduna daal di faatu ndeysaan ne ko sama yaay bi mu faatoo sama maam moo ma yoroon man sama maam moo ma yar nekk ma woon sama kër baay bi ma demee ba màgg ba xàmmee la sama baay daal di may jël si ndax góor laa ci moom laa war a féete te foofu ma nekk tamit neexu ko ndax amoon na yenn jikko yu ma commencé woon di am ndax sama maam moo yar te xam ngeen ku maamam yar ni muy mel ndax bëriwaat na ñuy wax ne ku maamam yar day xamadiku maanaam day réew ba taxoon na papaam bañoon loolu ak bañoon maamam di ko yàq ba indi woon ma ci këram bi ma indee ci këram nag boobu la samay jafe-jafe commencé ndax sama ay tànta ak sama ay doomi baay dañoo am fiiraange gu rëy rëy ci sama diggante ak sama papa ndax bëgg gi ma bëgg ndax li ma teel a ñàkk yaay te sama yaay nekkoon ñeenteelam jàmm dese woon na koo am ca kër ga bi ma juddoo tamit sama yaay daal di faatu sama papa nekkoon ku bëgg sama yaay loolu nag ba gëmewu ko bi mu faatoo sax moom nanguwu ma woon a bàyyi ak sama maam sama maam forcé ko xamal ko ne ku ñàkk yaay day nàmp maam ba noonu laa nekkee sama maam waaye bi ma xàmmee mayuma benn temps noonu la ma jëlee ci sama kër maam indi ma taf ma ci wetam bëgg ma loolu nag di ma defal lépp lépp mu ma koy defal ay yére ay dàll manqué mu ci woon dara ne ko sama baay boobu yàlla suturaaloon na ma bokkoon naa ci ay doomam yi ëpp xel ba taxoon na école daanaka note yi ma laan am sama ay doomi baay daanuñu ko am ndax dama amoon fulla ci sama njàng ñoom daanaka jigéen ñi dañu leen a tardeloon ci lu bari ak jaaytaar ak di dund ci sama xaalisu papa man nag damaa yàgg a teg sama bët fu sori xëy na nag yàlla moo namm lii ci man daal ne ko bokk naa ci ñi njëkk am bag ci kër ga donte samay mag daan nañ jàng waaye ñu ci bari seen njàng amuñu ci ndam yàlla man la njëkk a may ma am bag ci sama kër papa loolu nag xam naa ne bokkoon na ci li gën a naqari nit ñi man nag toujours damay rafetal bis bu set du ma wan ne kenn jàppal nga ma mer dama lay jàppee comme ni ma jàppee sama pàpp waaye ñoom ñoo ma bañoon bañ goo xamante ne xaw ma lan moo ko waral xaw ma lan moo tax amaana nag fi ma sama papa tegoon moo kawe te fi ma eggoon sama papa man rek maa fa eggoon sama papa ndax xel mi ma am ak yaru gi ak tee gi ak sama yaay lim teelooy génn àdduna te mu nekkoon ku fonkoon sama yaay ba pare man ma nekk taaw teel a ñàkk yaay loolu taxoon na mu am ñeewantal ci man loolu nag lañ doon ma fiire ak sama papa xëy na loolu la daal ci rafet njot daal ne xawma lan la waaye xëy na loolu la fekkee loolu la tamit jéggal naa leen jàppalu ma ci kenn dara sama baay bi mu demee ba yóbbu ay doomam pour ñu tukki ginnaaw bi mu yóbbee taawam bu góor mu nekk fa di liggéey gis na ne ñi ci des daanaka bolo bi moo ëppoon li ñuy def ci àdduna man la ci gisoon ma woy deng ci liggéey ba taxoon mu lijjanti woon ma pour ma dem tukki bi ma demee ba jekk bañ lijjantil ma passeport bi ma war a tukkee ba ma dem déposer visa bi ba passeport bi dem ba dellusi ba ma nekk ci préparation tukki pour dem fekk ji sama frère boobu jàppale ko mën a am dara tamit jàppale sama famille ndax sama yéene lépp loolu kase la woon ndeysaan guddi gi nga xamante ne sama passeport ñibbisi na ba ma jot si ba ma dem jëli ko guddi googu xawma kan moo yëg sama préparation visité ba gis sama passeport fi mu nekk mu daal di koy jël daal di koy taal waaye tamit ma gis changement bu gaaw a gaaw ci famille bi ndax sama baay ginnaaw bi mu xëyee suur boobu ba wàcci ba ma wax ko situation bi nag ko sama passeport sama kaw lal laa ko fekk ñu taal ko fekk naa fa birket moom dafa ma yuuxu tàng sama kaw wax ma ne damaa ñàkk jom daal di jooy daal ne boobu laa commencé gis ab changement bu gaaw ci sama digganteeg sama waajur bu góor boobu nga xamante ne moom rekk laa am moom rekk la ma yàlla booleel ndax ginnaaw sama maam moom moo ma yar bànneexu àdduna moo ma ko xamal noos gu ma noos ci àdduna ci ay loxoom la jaare waaye bis boobu bi mu wàccee gis naa changement bu bizarre ci moom ndax bi ma rombee ci saal bi ni mu lan ma nuyoo rek nuyoowu ma ko dafa ma romb jàll dugg ci néegam waaye man ginnaaw ba ma wàccee ba gis sama passeport ñu taal ko gi yëpp dama ko jël denc ko di xaar ba mu ñëw ma wan ko ko pour xamal ko lan moo xew donte ba nii xawuma kan moo taal sama passeport mais xam naa ne ci samay jabari papa la wala samay doomi baay noonu bi ma ko jëlee ak almet gi dem yóbbul ko ko daal di ko koy wax ne ko damaa jàngi ba wàcci ñëw fekk ko ci kaw lal bi ñu taal ko xawma kan moo ko taal sama baay noonu la may yuuxoo daal di may dóor mbaj ma première fois mu dóor ma mii bis boobu wax ju ñaaw ji nekk mu wax ma ne ma damaa ñàkk jom man kenn waruma defal dara ne man li ma defal mérité wu ma ko commencé di ma wax ay waxi ñaaw yoo xamante ne xaw ma nu mu ko mën a waxee ak xaw ma lu tax man sax comprendre ma maa ngi taxaw jaaxle moom moomu di góor njaay bi muy wax loolu mu ngi jooy ba moor si jëmmi boppam di doomam yaramam mu ngi daw ba muy jooy ay jooy métti sax moom moor ndeysaan xam ne moor mu ngi commencé di rëccu li muy laajee loolu ndax commencé na di jàppal en gu rëy fameem boobu nga xamante ne donte jàppaloon na leen en ngir jàppale gi ñu leen ñàkk jàppale waaye jamono ji ak mañeelam dafa gën a yokk noonu mu ne ko noonu góor a njaay daan moor sama baay noonu la may yuuxoo di ma xas ci loolu nga xamante ne sama yoon nekku ci taxewuma ci laalewuma ci waaye suur boobu sama papa moor wax na ma lu ma metti moor daal di jooy ndeysaan ne ki gën a sori ci man muy sama yaay ki nga xamante ne dama amoon yéene fekkanteeg moom ci àdduna dund teral ko teral sama baay comme ni ko nit ñi may gis di defe ku ma gis nga ànd ak sa yaay dama lay ñee ndax man sama yaay foto rek laa am ci moom waaye bis boobu sama papa lépp lu ma defaloon ci lu baax da ko raxas ci sama xol ba mu set wicc ndax noonu la ma yuuxoo dal na ma daal na ma nii rek nga mën a mel yaay ju ay gaaf moom ku ko am loo teg sa loxo du baax loo teg sa loxo da ngay échec sa yaay bi mu duggee sama dund toujours ay tolof-tolof xoola ni ma dajee ci sa këyit yi xoola ni ma sonne ci sa këyit yi ba mu lijjantiku fay ci xaalis bu bari tey xaalis boobu yépp daal di niil ngir sa sàggante sa yaay moo bon doom ja ndey ja di wax loo xamante ne sama yaay musta toog ak man wax ko ndax toujours dafa laan ma dëfal di ma wan samay foto yaay ak di ma wax ne sa yaay ku baax la woon ku ma mënoon sëyal la waaye bis boobu daal dafa mel ne dafa am lu mu dencoon ci xolam jékki-jékki daal di koy génnee yebbi ma ko man nag noonu laa yëgee sama bopp ci loolu mu wax sama yaay loolu moo waral ma daal di jël sama ay bagages daal di génn sama kër pàpp bi may génn maa ngi gis sama benn tànta ndeysaan koo xamante ne sonaloon na ma loolu ci kër ga ak mbonam da koo nëbbul ci sama diggante ak moom moo nekkoon sama ñetteelu papa bi xam ne kooku sama yaay moom la doon wujjeel bi may génn la gaaw jël ab bale mel ne kuy bale pran bi di bale sama ay tànk di wax ne yàlla na sa ngelaw nangu di ko wax pour ma dégg ko waaye bëggul sama papa dégg ko sama tànt jooju lu mu ma waxul pour naqaral ma amul egg na sax ba tiim ma ne ma ni ma def ba jëlee fi sa ndey xam nga ne dinaa def nu ko raw ba jëlee la fi ndax man mi fi jëlee sa ndey yow mii di doomam tawoo ma daal di may wan ginnaaw waaye fekkee àq dox na sama diggante ak moom man jéggal naa ko baal naa ko àq ndax àdduna bii du dara fas yéene ma di fi nekk di amlante kenn àq ndax yàlla buur bi moo ñu gën a màgg te boo ko tooñee lu mu rëy rëy soo ko baaloo ma jéggal la man nag foofu laa teg sama bët ba tax na lu ma waay def dama koy jéggal ci saasi donte dinaa mer waaye bis bu ma demee ba toog yàlla def na sama xol loo xamante ne ku ma jàppal mer lu mer bi bari bari dama lay bal àq moom nag fekkee moo rey sama yaay na ko seere ak sama yaay xawma nu ñuy dundee ñoom ñaar bis pénc waaye sama wàll ci moom wéy na ndax man jéggal naa ko daan ko bi ma demee sama kër maam dama laan toog ba mu yàgg may woo sama papa ngir taxawu gi ma taxawu ginnaaw bi ma ko meree toog naa xalaataat xam ne lu metti metti sama waajur la xeer la man nen laa su ma jéemee dëgëranteeg ak moom bopp maa ciy xala gaañu dem naa bay rafetal sama diggante ak moom waaye sama baay dama koy woo lu mat fukki appel du nangoo jël appelam su ma demee sax yenn saa yi sax ma jël sama téléphone xarit pour bëgg koo jot su ma ko woowee ba ne ko man la góor daf may gëdd ne ma loo may woowee bul ma woowate bokkutoo ci samay doom naan xaw ma maa la jur xaw ma juruma la est-ce que sax yow man maa la jur est-ce que sa ndey taxawaaluwut ba jur la indi la ci famille bi pour bëggoon a toog ci sëy bi fekkee loolu la de yàlla fay na ko borom ndax rey na ko toroxal na la toroxal ma daal sama baay daal daan ma toroxal toujours man moom saa su ma meree ba giif daan naa rafetal di ko woo mënuma ko bàyyeewoo ndax cëfeel gu rëy dafa am sama ak moom ndax dama ko bëgg loolu sax noonu muy waxee ba yaramam tàng mu ne ko moor bàyyi sa jooy lépp day baax man gëm naa ne yàlla lépp lu ma teg ci nattu su ma ko su ma faatoo tamit wuute ko yow moom dina la ko fay gëm naa loolu bu baax a baax te toujours maa ngi lay ñaanal daane ko Mor gis nga at moomu noonu sama baay génnee ma kër ga sama ñeent frère tukki nañ ci yoo xamante ne sama baay moo leen lijjanti lijjante bu gaaw yóbbu leen ci ñoo xamante ne toujours dalaan xulook ñoom ci ñàkk jom ngir xaalis bi ñu laan jël di baloo di jënd ay téléphones yu cher di indi ay xale yu jigéen ca kër ga loolu nekkul woon lu mu bëgg ndax moom diineem da ko fonkoon ñun ñi avant ñuy dugg école dugal nañu daara am na ñu ci wàcc am na ñu ci wàccul taawam bu góor boobu bokk na ci ñu wàcc man mii di wax ak yow avant may dugg école jàng naa ci daara ba wàcc alxuraan waaye benn yoon laa wàcc mu génnee ma ci daara ja daal di may dugal école pour ma jàng teel a am xam-xam ngir ma mën a bokk ci ay doomam yi koy wutu ndax sama ay jikko yu bari neexoon na ko daan ne ko moor gis nga ginnaaw bi mu yóbboo ñooñ ñu tukki at moomu laataa muy jeex la sama papa faatu mu nekk lu metti ci man loolu sax commencé di jooy yokk ay jooyam ndeysaan di jooy bay xëxët am na benn temps bu mu taxaw sax waxut dafa sëgg di jooy ba moor daal di koy may ndox daal ne ko doy na jërutul ngay eggale ak man mu ne ko déedéet comme que waxtaan naa yow ba fii il faut que ma eggaleel la ko nga mën a xam fi ngay teg sa tànk ci àdduna noonu mu ne ko sama papa bi mu génne àdduna mu nekk lu metti loolu ci man ma ñàkk yaay ñàkk baay donte sama baay jamono jooju neexoowuñ waaye ñàkk ko doonoon na ci li may tiis fi mu jaar ak man ak taxaw gi ak daan ànd ak man di doxantu daan foo ak man di kaf ak man di reetaan yabante ak man complexe musta dox sama diggante ak sama papa loolu dafa teel a xeex pour mu génn sama diggante ak moom doonte samay soxla li ma laan ko ko wax bariwul waaye soxla bu ma masaana am daan naa am fitu taxaw wax ko ko commencé di jooy ne sama papa jooy naa ko lu tolloog ay weer te génn sama bopp bi daanaka taxawaayu yaay ak bu baay moom palaasam da cee feesoon loolu taxawee mu ci boor yépp ba ñëw ma sama benn moroom waaye seytaane dugg suñ diggante ba tàqale ñu waaye noonu toujours ma koy xalaat ak di rafetal ba ni mu génnee àdduna daanaka Mor gis nga sama papa bi mu demee ba feebar dikkal ko ba muy miraas boppam ci gàttal ndax bariwaan na borom xaalis yu ko fiy def mën nañoo séddale seen alal seeni doom te ñoo ngi dund xam ne boobaa suñu faatoo mën na bañ am problème leetar boobu man mii di góor bokkuma ci sama papa dama cee seppi génn ma ci ay doomam ci jamono yi mu feebaree nag ba sonn laa la wax xam ne boobu yàlla rekk fi sës sama papa boobu la ma gën a bañ ne nag lii lépp man jàppaluma ko dara ndax xam naa ne ay pexe noonu la ndax fi ma jaar ak moom xam naa ko bu baax a baax ba tax na duma ko mas a fàtte waaye li nga xamante ne nekk na sama fin sama diggante ak moom dam ñu xam naa ne tamit loxo génn ci ndax seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel ndax yàgg nañ ma tëkku ca kër ga mooy li ma loon la wax léegi ci sama digganteeg sama tànta jooju ne ko moor moor di jooy ndeysaan mu ne ko moor gis nga sama papa li ma jot dund ak moom ci jàmm xaalis boobu ma lekk ci moom ak bi ma nekkee sama kër maam nekk xale mu may taxaw loolu weesu wut suñu diggante man ak moom lu may xaalis boobu ginnaaw bi mu xëyee xëy bedd ma ba nii may wax ak yow ab dërëmam jëmul ci man mii di doomam waxuma laag miy jàppale sama maam comme ni ma laan ko jàppalee taaye ma nekkee moom ci jàmm ne ko sama yaay jooju ma xàmmee ci moom di ko woowee yaay te sama maam la ndax moo jur sama yaay sama maam jooju nekkoon ko am jom moo ma yar moo ma dundal ba ni ma toll bi mu gaañoo la ma coonee àdduna dëgg daal di dikkal bi ma sama papa wanee ginnaaw génn àdduna ak bedd gi ma bett yépp bi may gis sama maam ngi ci jàmm waaye bi mu génnee àdduna ma doon jirim dëggantaan boobu ma torox tàngi dëgg commencé di jàpp ndax waa kër ga considéré ma ndax yuruma alal yuruma xaalis loolu taxoon na may buuxante di jël sama ay diplôme mbooleem diplôme bu baax bu ma am jël naa ko xool entreprise bu ma mën a dem liggéey boo xamante ne seenub liggéey dina dëppoo loolu ak li ma jot a jàng mais su ma demee ñàkk branloo daan na tax duñ ma jël noonu laa demee ba décider xam ne ay kayit moom nekkul ne jamono ji moom mooy mayub liggéey sama benn xarit boo xamante ne place papaam la nekkoon papaam yoroon place bu mag ab kénkaayere di jaay lu jëm ci wàllum kër lu ci mel ne ciment ak xeet yooyu man foofu laa laan dem suñ daan yeb sareet yi ciment pour jëmale ko ci benn kër wala ci oto yi man mii di góor njaay noonu laa nekkee woon foofu di liggéey ci ciment yi di jël ciment yi di ko yégal ci ay oto ndax boobu amoon naa kàttan noonu laay jëlee di yeb ciment yi ci oto yi ak ci sareet yi ñu may fay journée 3000 ne ko pap gis nga journée 3000 yooyu noonu ñi laan ma fay si laa dem ba wut ci ab saret pour di def comme samay morom di ñëw di yëpp ciment di yóbbu di am ñaari salaire ñu may fay mille journée ci yàpp bi waaye ki may yóbbul ciment bi di ma fay xaalis ça dépend nag ci man ak moom li ñuy waxaale mën naa am yenn saa yi ma soxla prix bi du baax ma wàññi ko ngir damay soxla xaalis yenn saa yi tamit nga tasi seek nit ku baax ku lay yërëm ku am yërmande ci néew doole yi fay la prix bu baax gis nga xaalis boobu ma doon dajale di ko am muy ay 3000 ay 6000 yenn saa yi ay 10000 xaalis boobu noonu moo ma may kër gii nii nga nekk tey. si laa takkee jabar muy sa yaay ju baax ji nga xamante ne dafa ànd ak man boobu ba léegi di muñ waaye xam naa ne lépp dina ko fi fekk te yàlla dina ko teral ngir muñ gi mu muñ ci man mii billaahi yàlla du ko ci masa mu sant ami moomu bay jooy moom moomu di góor a njaay ngir ànd gi mu ànd ak moom ci ñàkk gi ba nii mu toog di ko muñal seeni problème kenn du ko xam mu ne ko 3000 3000 yooyu surne 10 000 yooyu si laa la ngéntee si laa dajale ba am ci lii ma am xeebu ma ko nag ndax lii la ma yàlla wërsëgale te sant naa ci yàlla bu baax ndax am na ñoo xamante ne maa leen tane ndax des fois ma romb nit mu tëdd ci mbedd des fois ma romb nit ci télé bi mu wéradi te ñooñu ñëpp gënuma ci kenn ndeysaan ne ko Mor li tax nga laaj ma lii du hasard yàlla am na lu mu namm ci yow ndax lii bépp doom bu ko dégg sa waajur dund ko soo amee jom dëgg dinga am foo taxawee ne ko moor maa ngi lay ñaan nga moytu bu baax ci àdduna te jigéen dafa doy waar jigéen dafa doy waar ne ko moor maa ngi lay ñaan mu fekk ma fi ak mu ñàkk ma fee fekk xam naa ne yàlla dina la teral incha allah ndax sama coono ak sa yaay li mu liggéey ci sama kër gi du neen yàlla du lu ci masa neenal incha allah ne ko Mor soo demee ba am sa yëfi bopp ba yàlla dimbale la sa ay jabar na nga leen yamale te bul mës a jug di wut ay muslaay ci sa bopp te sa ay doom ni ma la jàppee ngir yàlla na nga jàppee noonu sa ay doom daane ko Mor bëgg naa nga fas jom gën a yokk jom ne ko su la neexee sax bul liggéey ngir man loo liggéey su la neexee bul ma ko jox denc ko waaye fexeel ba nanga ci dimbali sa yaay ne ko moor soxorante ci àdduna dama la ko ñaan lu leen di soxore soxore bul masa fayantoo ko ak moom bul masa wan sa doole nit moor na nekk nit koo xamante ne ku doylu ngay doon ku am yërmaane ci nit ñi loo am lu mu néew néew dee ci génnee di ci saraxe maanaam moo xam nga saraxe xaalis moo xam nga jënd ceeb xool koo tane nga jox ko ko gëm naa ne yàlla dina taal say làmp ne ko nag ginnaaw bi ma la nettalee samay jaar-jaar bëgg laa yennil yan bi nekk sa bopp bi ngir nga mën a xam fi ngay teg sa bët ci àdduna waaye na nga góorgóorlu bu baax borom karaw gu ñuul ñàkkul dara man mii di wax ak yow saa su ma xëyee damay sant yàlla ndax toujours donte li ma am néew na waaye bis bu set day gën a yokk te bis bu set ma ci sant yàlla ne nekkoon nag yow la suñu yaakaar nekk surtout sa yaay yee man li ma gën a ñor mooy nga dimbale sa yaay te nga liggéey préparé ak sa njaboot ëllëg ndax coono yi nga daj war ngaa def ay pexe ba ñoom su ñëwee duñ daj coono yi noonu la mor jóge ak force nag ak doole am gëm-gëm jomam yokk loolu yërmandeem ci seen famille gën a yokk mu ne ko bàyyi baa xam nga ne ku la masa toroxal bis a ngi ñëw dina sukk ci sa kanam di la ñaan ak di sàkku ci yow ndimbal ne ko baay bis na ko tey dinaa def sama kemtulaay kàttan ba sa naqar dëddu la mbooleem naqar boo amoon ci àdduna bis na tey jii la lay wan ginnaaw daan na ko papa fu xaalis nekk liggéey di ko fa jëlee ak njàmbaar dinaa fa dem jëli ko noonu Mor daane ko bàyyi sa ay coono dafa doy sëkk ci àdduna ndax dangaa dund coono yu metti ba am ma dund coono yu metti di ma dundal man ak sama yaay ne ko say noon duñu am ndam lu mu laaj dinaa ko def pour nga bañ a torox ci sa ay noon rek daal di koy wan ginnaaw waaxu ay waaxu yu dëgër daal di dugg ci néegam bi muy waaxu baay jàngi jooy di ko woo ngir bëggul doomam jooju di def musiba waaye moor moom décidé na tekki par la force ci dem liggéey ñaq ko su dee ay buntam du baax mu xool nu ko wutee waaye nee na du seetaan mukk baayam jooju ay noonam toujours ñi am ndam ci kaw fii nag la ñuy yemale premier épisode bi di leen jox dig daje deuxième épisode bi ci la dund moor war a tàmbali ñi nga xamante ne nag ñoo siq casting bi jàpp leen ne ñëwagul ndax toujours lañ koy def nañ koy faral di defee tàmbalee ko ca kaw. muy ca ya jëm ci suuf ndax daanaka moor moomu ak fameem moo waral histoire bi mooy bande annonce bi ngeen dégg liñ ci jot a wax loolu lépp ci fami moor lay xewee kon ñoo ngi leen di jox dig daje deuxième épisode bi tàmbali ak yéen ci dunduk moor dugg ak yéen ci biir histoire bi incha allahu rabbi gént gi yenn su ma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex dalal ak jàmm ci sunu maison production suñ production di la ñaan nga abonné te activé cloche de notification bi partage ko sa ay xarit ngir ñu mën see jariñ bul fàtte di sem vidéo bi ndax da koy may doole loolu ci biir YouTube suñ production sunu mbégte sunu mbégte